tàngal ji jinjeer ndoxu waalo boisson punch orange ak agence pour l'économie et la maitrise de l'énergie di AME ñoo leen di may seen émission ndekki li xam ba léegi yaa ngi da nga ah. réer ah moi je suis dans la prospective dama nekk ci investigation dama invité à la réflexion et à l'action man ma bëgg ñu am suñu yëfu bopp. mais on est d'accord du parce que yow fi nga tënku. Mhm. yow xaw ma je crois que yow arabisant nga. non pas non je suis yow fi nga tënku. fi nga tënku. je ne suis pas arabisant war nañ fa tekkeeku. pourquoi ku nekkul démocrate rek dictateur nga. ah moi je suis un descendant de Soundiata Keïta. oui mes ancêtres ont dirigé des pays. sans qu'on les ait taxés de démocrates ou de dictateurs. Mhm. c'était des empereurs et des rois. T'es my number one Dékili, dékili Man moom laay déglu Sud FM salaamaaleykum Sénégal man la bay di bi de bu bees yaa ngi ci émission Ndekki li ak maam Nicolas jërëjëf

baax a baax waxtaan ñi leen amal njëriñ saa su ne ci ndekki li ngeen koy amee ànd ci sponsor yi Sonatel Orange AM e, tàngal bégee boisson punch ndoxu waalo ñoom ñëpp sponsor yooyu gunge émission leader ñu ngi leen sant ti di leen gërëmati oustaz Maodo fay bismillah maa ngi lay nuyu euh, Nicolas di nuyu gan gi après nga présenté ko dalal ñu ko. Mhm. Euh, di nuyu également ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu fu euh, ci biir Sénégal ak li ko wër. Mhm. surtout ñuy synchroniser ci mel ne Louga Kaolack et cetera. Euh, surtout également suñu mbokki taximaan yi nga xamee ne. waxtu yi bu jotee rek dañu naan ñu ngi jàppi li démb rek maa ngi am ku naan ma borom ndékkili mën leen man kay ndékkili moom ma ko si <laughs> c'est Nicolas qui gère ça man kay moom ma di nuyu ñëpp di nuyu Sénégalais yëpp di ñaan jàmm ci réew mi. jërëjëf oustaz Maodo Faye ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm eh, ni ñooy santé di gërëm bu baax a baax yooyee mbokk nga xam ne eh, ay soppe lañu ñoom itam di ñu topp saa su ne ak eh, di ñu bëggee ak ñuy am mbégte bu baax a baax ci mu ñu xamee nit ñu toppee suñu gan yaa ngi koy souligner léegi mooy le commissaire Cheikhna Keita dañuy koy nuyu rek introduire ko bàyyi ko mu nuyu ak mbokki auditeurs yi ak mbokki internautes yi monsieur Keita bonjour salaamaaleykum. waaleykum salaam wa maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu ma bokkal plateau bi autant vous que les moo mm-hmm. bon di nuyu seen ay euh, auditeurs et tous ceux su suivent si vous internet bi. Mm-hmm. di nuyu sénégalais yëpp di ñaan jàmm si réew mi. Mm-hmm. di ñaan it luñ fi taataan mu jëriñ ko jëriñ askan wi. Mm. jërëjëf euh, euh, commissaire Keita commissaire Keita fàttali mbokk yi ne euh, il est ancien directeur de l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ñu naan ko OCRTIS dinañ dinañ ci waxtaan léegi léegi ci loolee mais dama bëgg juste une fois n'est pas coutume ah ak la une de Sud Quotidien de ce jour en ce 9 juin jeudi 9 juin 2022 Sud Quotidien qui ouvre avec le méga avec la méga manifestation de l'opposition à la place de la nation hier Yewwi ouvre le feu sur Macky euh, titre Sud Quotidien à sa une du jour def na manifestation yi nga xam ne euh, moom la opposition bi rawatina coalition Yewwi Askan Wi amal démb loole mooy euh, xew-xew bi tey te d'ailleurs loolu la ñu gën a waxtaanee ak sunu gan tey ku ci mel ni Ousmane Sonko di ci ki ci ki ki ci gën a fës mu ngi naan le Sénégal est en danger et Macky Sall est l'unique responsable xam naa ci loolu rek lay introduire commissaire Keïta xam naa wax jooju jooju euh, Ousmane Sonko wax euh, dafa mel ni fu mu nekk nii ak manifestation bi opposition bi réussir macha allah démb xam naa war war na war na def dara ci yéen de jamono ji muy xam nga damay répéter tout le temps ni loo comprendre jaaxalu la. Hmm. parce que soo ko buggee faj war nga ko mën a faj. soo ko buggee expliquer war nga ko mën a expliquer. Hmm. du nu spectateur bu nekk ci biti dara intéressé wuñ nekk amuñu ci paax. Euh, wax ji nga wax noonu la effectivement opposition bi def nañu manifestation remplir nañu place de l'obélisque mm. mais mbir mi fu mu jógee mm. euh, Ousmane Sonko nee na lu xew ci réew mi Macky la mm. mais duñ ko defee noonu duñu caler théorie boobu ci événement bi dañ koy caler ci processus bi nga xam ne moo ñu indi ba fii parce que Sénégal dafa am fu mu jógee récemment man personnellement ma nekk ci acteur bi nga xam ni dama teel a yeewu wax naa leen ni dama teel a tey léegi la Sénégalais yi xam ci fan yi ni Ousmane Sonko ànd na ak moom. def nañu defaat nañu bokk na ak moom. te moom ba léegi du tudd loolu. boo nee Ousmane Sonko ànd nga ak moom mooy maanam ànd naag moom. très tôt c'est que il fait partie de ses de ses militants. non je ne faisais pas ah partie de ces ah militants. Ah, dama génn police. dama je je hmm. les termes qu'il me faut. dama génn police. Mm-hmm. yàlla may ma benn popularité mu jot ma déglu certainement. Mm-hmm. yàlla may ma lu war a attirer attention ci sama expression ma sama dis sama expression. Mm. physique ou verbale. Mm. mu daw ñëw sama kër. Mm. amul ku ñëwul sama kër. taq ma nag. de mille 2014 à 2016 du ma wax lu mu def yëpp. Ousmane Sonko ngi doon ànd ak yow. di ñëw sama kër. ok sama waa kër xam ko. vous avez parlé de Jacques tout mhm. xam ko di ko gis muy toog ci sama salon. may dem këram. ok mu bugguma dugg Pastef ma ne ko déet man kilifa laa man dara du ma bogo bogo dara du ma bagaas. Mhm. je respecte nga ñëw sama kër. je respecte ngay ñëw di ànd ak man ñu ànd di liggéey ci xalaat. Mhm. pourquoi parce que man nitu xalaat laa. ñun alkaati d'abord par expérience lu nekk suñu yoon a ngi ci suñu génération dañu politique trop donc bu ma ñëwee ci géew bi damay am xalaat ci espace bi ñu commencé liggéey ci recherche ak yeneen génération yi nga xam ni je le répète toujours ñoom Cheikh Tidiane Dièye yi ñoom Jean Charles Tall ñoom Mame Adama Guèye ñooñu ñëpp cercle boobu man maa leen doon dajalee dajaleek Ousmane Sonko ci fi nga xam ne amul publicité ñuy dem di def ay séminaire di def ay rencontre foofu laa xamee Ousmane Sonko. léegi gannaaw Ousmane Sonko yow daf la doon daf la doon seet si di ñëw di toog sa salon ngeen jege yan taw pendant des années euh, lu waral lu ñaaw lu changé ci diggante bi ba tey jii nii euh, booy wax ci Ousmane Sonko dafay mel ni voilà quoi. non hmm? non sama tempérament moo demee noonu mais dama bëgg nit ñi dégg li may wax comprendre ko. ay ca boobu je tempérament de solda hmm. su may wax day vibrer. Hmm. mais ce n'est pas de la violence ou de la haine ou quoi que ce soit. c'est quoi alors noonu laa Ousmane Sonko. dara xewul. bi ñu teqali ko yàgg na. j'ai dit de 2014 à 2016. ma ànd ak nit mu bugg dugg ci parteem mu takk ma marqué à la culotte fu nekk ñu ànd fa ànd nañu tukki ànd nañu fanaan àll ak ñeneen ak ñeneen yi xam war nañu wax réew mi il faut que nit ñi bàyyi di noppi ci li nga xam ne du leen arranger seen posture man dama bañoon polluer environnement moo tax ma téye loolu yëpp j'ai dit 2016. may xool mais très tôt comme alkaati la sama xel dafa teel daw ci ni kii fi mu jëm jàmm amu fa. Hmm. très tôt j'ai dit am lu daw sama yaram ci sa manière de sa comporter li nga xam ni mooy autoritarisme bi ak orientation wu processus de recrutement am ak ni muy manager ses rapport avec les gens et les appels du pied qu'il faisait à ce moment il n'avait pas la presse. et le besoin qu'il avait de maîtriser l'appareil de presse loolu tey na feeñ ak bugguma dugal man ci couloiru presse am fi nga xam ni fa la bugg yëpp jaar vous avez remarqué que ni je n'ai jamais partagé de plateau avec Pape Alé bon Dieu il l'a cherché hmm. lu tax j'ai refusé parce que c'était de la manipulation déjà à cette époque parce que j'ai vu que derrière il fallait que ñu coloré ma dugal ma ci système bi xam ne damay nekk nitu Ousmane Sonko alors que man mag laa bi ñuy dajee maa ko ëpp xam-xam maa ko ëpp mën-mën. parce que je venais de faire quarante ans de service. un fonctionnaire de la hiérarchie en un comme lui-même et intellectuel. donc amul woon fu mu mën a taxaw. fi nga xam ne waru fu mu mën a taxaw ñu échanger. mais moom da doon recruter. ok ma xool nekk nitu Ousmane Sonko donte tey nekk nga nitu Macky Sall. non du noonu la répondre ci boobu question. maanaam dama danga nga bëgg da nga ma laaj. Hmm. bi ma koy bàyyi donc. Hmm. dama toog ba xool ba xam ni kii fi mu jëm. Hmm. man mënu ma fa dem. ma toog ak moom këram. Hmm. ñu reerandoo ba pare. Hmm. ma génn këram dara xewul. Hmm. ma arrêté boobu relation. coupé complètement suñ ma laajee sur les plateaux ma ne duma ma wax ci Ousmane Sonko. parce que su ma waxoon moment boobu damay fen ba deux mille dix neuf. ma commencé gis allure subversion ni muy duggee ci réew mi. ak tendance à vouloir coûte que coûte que le pays pëccëxoo nekk en crise perpétuelle. et il était à l'intérieur de ce dispositif. tout le monde est là. c'est tout ce qui est parti après Petrotim après les tendances de aar li euh, après tout cela il y avait une dynamique de créer l'évolution de mettre les populations dans leurs humeurs mauvaises et de les amener à rejeter le pouvoir en place loolu nga décidé yow ci non avant ça déjà ah. j'avais fait une analyse ma xool xam ni ceux qui s'opposent ne proposent rien mm -hmm. et jusqu'à présent encore ils ne proposent rien mais j'ai vu que il y a quelque part quelqu'un qui travaille okay. et li attiré sama attention c'est que tout le monde voulait me pousser à être contre Macky Sall Pourquoi Parce que comme on en parlait tout à l'heure, j'étais un commissaire de police, je suis sorti de la police sur un scandale, mm. et les gens sont dit absolument kii dafa war contre Macky tout le monde voulait me recruter. daañu ci dellu de poser. mais mais justement man commissaire euh, li ma la laaj mooy li nga wax ni ci Ousmane Sonko et tout ça il est quelqu'un boo xam ni coûte que coûte prendre le pouvoir avec est-ce que loolu jugement gratuit ça c'est des velléités noonu laa ko mën a tuddee mais rien ne vous dit forcément li nga yaakaar ci moom moo nekk ci moom à mon avis. xam nga que c'est des idées c'est des idées. au lieu que nga raisonner ak man nga rejeter lépp. non non je vous ai je rien ne prouve que li ngay wax ça veut dire que. tu es habité par ce besoin de nier ce que j'ai dit. Non, mais tu me renvoies de rendre possible. Non, pas du tout. Ça. Non, pas du je, tout. Je, loin, J'arrive, j'arrive. J'ai dit. Oui. man maay siège u décision bi. kenn newu fa woon lu ma ci xam lu ngeen ci xam man maa leen ko xamal tey te ay at ma toog man Ousmane Sonko du ma gis du ma dem ci moom j'ai fabriqué quelqu'un qui le défend aujourd'hui muy muy kii Biram Khoudialo ok c'est moi qui ai fabriqué Biram Khoudjolo. D'accord. Biram Khoudjolo aujourd'hui défend Sonko. Je n'ai jamais discuté avec Biram Khoudjolo de pourquoi je ne vais pas avec Sonko et pourtant je l'ai fabriqué. Est-ce que vous avez une de tout ça, de, euh, un débat ouvert quoi avec euh, Sonko? Je n'ai pas besoin. Parce que je me suis positionné ailleurs. Je sais que celui-là, je dois l'éviter. y' a pas de débat on ne peut plus s'entendre parce que xool naa ba xool xam ni moom li mu bëgg mooy ma dugg ci partem nekk sous dans son dispositif et il gouverne tout cela. comme l'a fait attends c'est pas un danger le fait de rentrer ou de repasser. c'est un danger. c'est pas d'autant plus une peste quoi. c'est pas une peste. Ah projet qui fait une peste. et arrêtez-vous et écoutez. Si vous dites c'est pas une peste, c'est parce que vous êtes déjà dans les dispositions d'affirmer vous mm. ce que vous savez de lui qui fait de lui qu'il ne soit pas une peste. Mais man dama la wax ni la. lu ma retiré bañuma ko. lu ma retiré ba ma daan nit. alors que maa ngi doon ànd ak ñeneen mu bëgguñu ma ànd ak moom muy xale bu dëkk ci réew mi may mag mu dëkk ci réew mi lu ma ci retiré da ngeen may laaj ma expliquer ko. ne le rejetez pas. j'ai dit il voulait que je rentre son parti ni mu ko defee. c'est un capitaine recruteur qui cherche des profils comme moi je me suis retenu kenn du ma bogo bogo. mais am nga am nga ci droit. mais attendez un peu. loolu loolu am yow da ma laaj. da nga ma laaj. kenn du ma bogo bogo. man maa la wax yow ni man mën nga gëm wala ban nga ñàkk gëm mais bu ma delloo ci Ousmane Sonko man maa la wax ni la dama koy xool gis ni muy doxalee ci fi ñuy ànd ma gis ni muy liggéeyee. dama doon toog ak moom ay nit yu ma dul tudd fii liggéey bi intéressé wu ko nu muy fexee ba recruter ay nit ci biir loolu moo ko intéressé deuxièmement ma gis ci ay tendance am. mais est-ce que est-ce qu'il y a danger de vouloir recruter quelqu'un en politique. mais c'est pas une réponse que tu dois me faire. j'affirme qu'il y a danger parce que c'est ma lecture. Ah, je suis un policier. je suis un policier je suis en train de te dire qu'il y a danger. Pourquoi? Parce que j'ai vu quelqu'un mhm. faire des appels de pied. Mhm. avoir une démarche qui annonçait déjà un esprit très régionaliste. Hmm. donc loolu nga bëgg ma wax la ka hmm. très régionaliste. Okay. déjà qui qui cherchait un peu à regrouper autour de lui des cadres mm. du sud des jeunes du sud jusqu'à Guy Marius Sagna, que j'ai connu dans les mêmes conditions que lui et que j'ai rapproché, si mes souvenirs sont exacts, à Sonko avec d'autres. Ah bon? Parce que ah man maa ah nekkoon assis. Ah Guy Marius Sagna bu France ah bon? frappe, moi France je faisais frappe. yow yaa ko booleeg Ousmane moi je faisais frappe. Okay. quand Guy Marius Sagna. Euh, luttait pour les APE. Ouais. man la ñu jëkk invité. Mm. j'ai fait cette table là avec. Euh, Euh, le professeur Malick Ndiaye ou je ne sais pas quoi là. Mm. Et ce jour-là, je me suis accroché. j'ai fait l'anti-francophonie avec Guy Marius Sagna c'est des combats de principe mm -hmm. auxquels j'ai participé j'ai participé à des, à des plateformes au niveau de l'université mm -hmm. j'ai amené Sonko à plusieurs rencontres dans des endroits à l'université des cercles d'intellectuels mm -hmm. où il était là parce que j'entraînais le mouvement moi avec les Cheikh Tidiane Dièye avec d'autres et d'autres et j'étais là au centre de ça d'accord moi je ne suis pas quelqu'un de tout à fait traînable dans des choses je bi may dajeeg moom hmm. maa ko ëpp grade maa ko dàq jàng parce que dama jàng ba noppi def 40 ans de service ñu am expérience su état ak administration moom mu def 10 ans d' administration nekk un jeune cadre de l' administration di dugg ci politique li ma xam-xamu ko d' voilà euh, dama bëggoon juste poser une question. Euh, ci foofu ba léegi. mooy maanaam tey ñun jeunes yi bu ñu leen di xool ak di leen déglu. Mhm. Euh, ñu gis yenn propos yi di génn. ci de la part de gens wala de personne yoo xam ne c'est des gens proches du pouvoir mhm. ñuy saña am sañ-sañu génnee yenn kii yi su ma xel dafa dem ci démb lu choquant li ñu liir ci site internet yi. Mhm. ku mel ni Suzanne Camara defe naa la tudd. wax ko ne Ousmane Sonko dañ ko war a faat. n'est-ce pas noonu la ko waxee parce que il est dangereux pour la société genre euh, discours yooyu noonu bu ngeen koy tenir te yéen ngeen war a servir d'exemple euh, est-ce que ñun waruñoo tiit d'abord je reproche à tous ceux qui tiennent des discours comme ça hmm. de le faire hmm. Ahmed Suzanne Camara je l'ai entendu d'autres je les entends hmm. mais mon discours ne va pas dans ce sens-là et je trouverais désagréable qu'on m'aligne pour quelqu'un qui réfléchit qui m'écoute qu'on m'aligne dans ce lot-là. d'accord ay propos Ahmed Tidiane Camara tey hmm. d'accord ma ak moom. tey man sama wax mooy. ñun sénégalais dafa jot ñu ànd wax parce que maa ngi la koy wax tout à l'heure li nu waxul ci sunu diggante ak li nu waxul ci li nekk moo tax mënuñu déggoo mënuñu sax faj soxla askan wi et c'est très important je suis un porteur de discours je suis pas un partisan du ma supporter man du ma jaamu kenn du ma raamu kenn c'est la raison qui me fait prendre position quelque part mais j'y viens avec mes opinions dama am lu ma xam lu ma mën lu may xalaat lu may def Et quand je dis je suis avec le président Macky Sall, je puis l'expliquer et sans gêne. C'est-à-dire, je n'ai pas le complexe de cet opposant de circonstance qui croit que opposer, s'opposer est une nécessité. Je ne suis pas de ces leaders qui cherchent à se positionner du côté qui va gagner, comme on en a en pagaille aujourd'hui, qui se sont salis dans des mélasses où ils sont en train de se mouvoir sans savoir pourquoi. Pourquoi Khalifa Sall est plus magnifique que moi aujourd'hui mm. Parce que simplement, il est du côté du grand bruit. Mais il l'a cherché pour se reconstituer pour renaître politiquement alors qu'il a perdu de l'allant et de la lutte comme beaucoup d'autres gens. D'accord. Pourquoi Aïda et tous ces gens-là sont là mais est-ce que vous êtes allé comprendre pourquoi est-ce que tous ces cadres de la politique sénégalaise n'ont pas fait tourner leur mélange pour se positionner en ne tenant compte que de l'intérêt des Sénégalais pourquoi faut-il absolument être contre Macky pour être dans le beau ou dans le bon. Pourquoi, c'est des questions. Pour, pourquoi vous, vous Pourquoi je suis du côté Mais parce que j'ai choisi d'aller du mais côté. Mais eux aussi, ils ont choisi, Non, vous ne répondez pas toujours. je vous dis, <laughs> ah vous ne répondez pas parce que vous me renvoyez, parce qu'ils me dites eux aussi. Nous sommes dans un débat. Non, vous avez dit que vous avez dit qu'ils ont, j'ai raisonné, des actes. se sont positionnés à un endroit. xam nañ leen ñun ñëpp. li mu bëgg wax mooy le choix est libre. non c'est ce choix libre la taxul ñu toog fii. Ah. yooyu ay ay fuite en arrière la. ah bon c'est des fuites en arrière. le choix est libre. Mmh. Tu ne m'apprends rien. Mmh. Tu parles de moi. Mm-hmm. Toi, tu veux que moi, je me comporte à travers tes réflexions non. et tu ne veux pas réagir non, non, avec que, moi que vous répondez à, mes que vous répondez par rapport à mes questions. C'est simple. Je suis en train de vous répondre Merci. et malheureusement, le temps est court, ah. mais j'aurais voulu pouvoir vous répondre. J'aurais voulu pouvoir vous répondre allez, comme il pas. se doit. Allez, allez, Être avec le président Macky Sall. Mmh. moi je suis arrivé en 2016 à quitter Sonko tranquillement dem sama kër toog pourquoi parce que dama doon ànd ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ku ma gis may xool j'ai fréquenté tout le monde dans cette opposition tout le monde est venu chez moi ñu ngi tout le monde ñu ngi may wax wax leen gën leen wax wolof s'il vous plaît voilà gars yi nan ma mais may xool di xool ni mais pourquoi absolument doit-on être contre quelqu'un qui dirige le pays hmm. pourquoi absolument depuis que le Sénégal est Sénégal ku yore réew mi rek baaxuloo. Hmm. à commencé par Senghor. Abdou Diouf Ablaye Wade. Hmm. j'ai dit moi j'ai fait ma propre réflexion. d'accord yow da nga jël. Euh, euh, oto xool ne Macky Sall pour te résumer moo gën ci Sénégal. lan ngay xaar ci président Macky Sall yow. lan laay Keita ngay xaar ci moom. mais maa ngi gis muy dem. Hmm. il a un projet. projet maa ngi ko commencé analyser. ci fi nga xam ne fa la que nit ñi bàyyee di dugg ci charie di wax. mooy yoonu yokkute hmm. wax naa la ñun alkaati hmm. yàlla daf ñu may ñu mën am recul parce que lu ñuy def yëpp dañ koy xam si sinon suñu yaram day xasan hmm. bi ma xoolee bi may dellu si naan mais ce bonhomme laa il faut ma xam li muy def parce que personnellement je le connais je le connais très bien mais il faut ma xam li muy def li muy wootee quand bi muy wootee boobu man alkaati la ma commencé au BABA commencé fi mu commencé lan la commencé dama bugg pouvoir bi yoonu yokkute qu'est-ce que c'est yoonu yokkute ma xoolaat autour est-ce que démarche bu mel nii mës na fi am Senghor amu ko Abdou Diouf amu ko Ablaye Wade amu moom mooy le premier président qui est venu ici au Sénégal pour énoncer une vision. D'accord. tous les autres ne sont venus ni avec une vision ni avec un programme. Mm-hmm. j'ai la liberté de le dire. Mm-hmm. ma ñëw xool ni cette vision il l'a traduite. Mm. en un mauvais plan Sénégal émergent si vous voulez. Ah. qu'il soit mauvais. mais il a amené un plan. il a dit je veux amener le pays quelque part. Okay. pour la formation politique que Parce que je suis Mais de la génération d'après 68. D'accord, attendez, uh -huh. attendez, je suis de la génération d'après 68. ñun dañu xalaat ni. politique nii leen koy defee am réew nii leen koy yore. Uh-huh. c'est sur la base de vision de projet que nga mën a wax ci réew. Uh-huh. ma gis mu def loolu. Uh-huh. ma duggaat ci biir programme am gis programme bi am na ay articulation am na ay contenu am na lii am na lii. mu ngi commencé am ay réalisation bon ou mauvais. Hmm. j'ai dit fii dara nekk. Hmm. war naa fi mën a liggéeyal sama réew. Hmm. ànd ak ki nga xam ni mu ngi liggéey. di liggéey te du ma ko may dara. d'accord donte li ko dese. bëreetul euh, parce que def naa attaque lu teg rek. leen kii d'ailleurs ñu bëri ñu ngi ne Sonko 2024 puisque Macky Sall en 2024 normalement jeexal na mandat am. xam nga c'est un joli débat. dans lequel on m'entraîne toujours pour ma waxal Macky Sall. man sama bopp lay waxal. looy wax. moi je ne suis pas un démocrate. maanaam ah je ne crois pas en la démocratie. maanaam parce que intellectuel la parce que fi ngeen di toog ah bon yaa ngi mel ni ku jaaxle. ah mais les intellectuels croient à la dans la démocratie. c'est parce que sont asservis par le cursus leur cursus. universitaire et politique. d'accord léegi boo nee man leen ko dañu leen situation démocratie fan la boo a wax cela dire quoi je suis waaw ah, waaw maanaam loo bëgg libre bi nga xam ne fu may teg sama tànk dama ko gëm mhm. démocratie ñun dañu nekk fii pendant quarante ans mhm. ci Afrique yëpp président yu fi ñëw dañ fiy def vingt ans mhm. ça n'a jamais gêné ñu nekk ci monde bi ak yeneen système yi nga xam ne ñuy diriger pays dañ fay def vingt ans ça ne gêne pas ñu toog ba parce que le bloc soviétique a éclaté parce que l'Europe de l'Est si est entrée en démocratie Mitterrand woo ñu daal di nu da di def par force démocratie ñun war nañ fi rus di défendre démocratie te ramener wuñu les choses au départ réfléchir à suñu bopp contester loolu d'abord. kon a continuer bu ma dégg bu ma la déggee. non attends waxuma ni Macky dafa war a continuer bu ma wax loolu. da nga poser question ma delloo la sama forme su fekkee ni pour vous la question c'est mhm. Macky Sall dafa war a continuer je ne le justifie la war a jeexal je ne le justifie que par rapport à ma propre position je ne crois pas à la démocratie et si Macky Sall propose se propose d'être candidat encore je suis dans le chemin de le suivre et plus que ça encore plus que mm. j'aurais cru à la démocratie mm. nit booy ànd ak moom da ngay am gëm-gëm mm. gëm-gëm bi surtout nag day neex boo mënee raisonner si biiru dara pourquoi est-ce que si Macky Sall dit je veux être au troisième mandat. Le débat doit être pollué et les gens doivent dire comme ça. Parce qu'il n'en a pas le droit peut-être, non non, que man <laughs> xam nga non on ne peut pas ouvrir un débat. il faut ñu dellu si waat tuuti Nicolas. il faut ñu acceptable tu m'as dit tout à l'heure que 30 minutes ngeen am. waaw minutes yooyu mënuñu ci lekk mënuñu ci wax lépp mais débat wu droit bi. pourquoi hmm. parce que là là comment dirais-je encore la lecture du droit, mmh. moi, ne m'appartient pas. Okay. Je subis la conséquence de la lecture du droit. Mmh. Laissons à ceux-là qui ont le soin de lire le droit le, de, le, de faire. Et le droit existe dans ce pays-là. Pourquoi il existe dans ce pays-là ouais. Mhm. C'est parce qu'il y a des instruments qui doivent permettre aux populations mmh. et aux acteurs politiques d'être départagés mmh. suivant un processus qu'ils connaissent et qu'ils doivent respecter. Si on est en démocratie, comme vous dites, mmh. ils doivent le respecter. Si on est dans un état de droit, ils doivent le respecter. Okay. que soit la liberté de dire que je repose le, problème de la démocratie. c'est une manière très violente de, heurter les, les, les, les esprits que de dire je ne suis pas un démocrate. Parce que de me révolter contre cette soumission à eh. l'Occident eh. qui est entraînée un peu partout par la classe intellectuelle très des bien. pays africains très qui veulent nous vendre leur intellectualité. Nous créer. merci mais li ñu jàng ci tubaab li ñu indi. merci euh, commissaire merci beaucoup dégg nañ la bu baax te comprendre nañ la. j'espère wow. que c'est le cas de ñi ci YouTube beeg Facebook bi y a énormément de réactions ci chat bi actuellement sénégalais yi nekk ci àdduna bi yëpp ku ci nekk ngi réagir ci propos yi nga xam ne sunu ganu tey bi di euh, commissaire Cheikhna Keita mu ngi koy tenir euh, oustaz Maodo Faye. rapidement en fait bi muy tàmbali comme nee nañu wax tuuti wolof bi muy mm. tàmbali wax na. Mm. programme Macky Sall doy na ko ci ni mu tëralee yoonu yokkute d'accord nañ ah, PSE. baax na wala baaxul d'accord nañ ci ak lépp mais ñeneen ñi aussi am nañ programme. mën nañu mën nga tudd programme Macky Sall ok mais am na ñeneen ñoo xam ni posé nañ problème yooyu nag mën na ko bañ doy. Mhm. su ko neexee mu ne programme bi doyu ma bee moom ma doy là il libre. mais quand on n'est pas démocrate on est quoi on dictateur. Mhm. xam nga ba léegi yaa ngi da nga ah. réer ah moi je suis dans la prospective dama nekk ci investigation dama invité à la réflexion et à l'action mm. man dama bëgg ñu am sunu yëfu bopp mais on est d'accord du démocrate parce que yow fi nga tënku mm-hmm. yow xawma je crois que yow arabisant nga non <laughs> pas non je yow fi nga tënku fi nga tënku je ne suis pas arabisant war nañ fa mm. ku nekkul démocrate rek dictateur nga mm. ah moi je suis un descendant de Soundiata Keita mes ancêtres ont dirigé des pays sans qu'on les ait taxés de démocrates ou de dictateurs c'était des empereurs et des rois ce territoire-là était dirigé par des empereurs mais le, mais le monde actuel nous demande d'être de, en tout cas très juste au pouvoir on peut pas dire. Euh, devant tout le monde wax ne man duma démocrate. et on parle de, de la démocratie on parle de de de l'état de droit on parle de tout. vous m'avez invité sur un plateau pour qu'on parle seulement. si on parle en se référant à ce que auquel li moom mooy référence absolue bi kenn du ko agressé non pas absolue mais quand même ah si c'est naa débat ngeen baal ma mais <laughs> débat boobu noonu euh, étant donné le temps très limité duñ duggee duñ ciy génne euh, jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ñuy déglu ak sponsor yi leen di gunge Sonatel Orange AME boisson punch ndoxu wàllu tàngal bége émission bile moom la kilifa euh, réew mi di déglu mooy ndekki li émission nandite yi damay profité juste laata may enchaîner parce que war nañ wax ci euh, ba ngay nekk directeur euh, euh, ak la la jëlee ca police ak yooyu te war nañ ko tënk damay profito juste ci benn occasion puisque ñu ngi doon wax ci manifestation wu coalition Yewwi Askan Wi démb am na lu fa jot a xew ci sunu ay mbokki journaliste dama bëggoon profité ci occasion bi ngir massawu coono reporter yi moo xam ñoom ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngee daj lu ne ci mm. terrain bi d'habitude ah ci organe de presse mm. yëpp mm. ak bépp manifestation mais ñu masawu bu baax a baax sunu mbokki euh, reporter yooyu nga xam ne am na lu leen daal ci yooyu manifestation mm. lépp ci def seen liggéey rek xam nga euh, kii euh, oustaz Maodo Faye mm-hmm. yow euh, nga baal ma nag commissaire ah ça c'est une parenthèse que mm-hmm. je fais euh, yow maak yow nekkandoo woon nañ rajo nostalgie bu yàgg waaw dans les années 2000 absolument man nekkoon naa RFM waaw ci 2003 ñoo ñoo ubbendoo RFM gis nga damay fàttaliku nii rek vite fait mm-hmm. ba ñuy wax yi euh, Marto Talla Sylla yi jour boobu duma ko fàtte man dama doon RFM matin laa daan présenté. Mm-hmm. bi ñuy doog a commencé RFM. je présentais RFM matin et un matin maa ngi nekk ak El Hadji Assane Gueye Alassane Samba Diop Mamadou Ibra Kane ci bus bi ñu doon yóbbu RFM gars yi dañ ma jël si face rek ñuy génn rek juste ñu woo Alassane ñu ngi ko doon woowee lazu lazu lazu scoop Alassane Samba Diop xam na bu baax li may wax ne ko Talla la dañ ko marto fii ci euh, régal la xaw c'était au temps d'Abdoulaye Wade ñu wàccee ñu ñun parce que ça c'était l'urgence mm-hmm. bus bi parce que amuñu woon oto bus bi moo daw dem couvrir loolu ci la RFM amee exclusivité taala silla bi pour que ñun ñu mën a débrouiller wu le matin pour dem ubbi antenne wu RFM et cetera tout ça pour vous dire que ñun dañu yàgg ci métier bi on en a déglu naa Alaaji Assane Gueye sànq politicien bu nekk day jàll day romb ku ci nekk sa intérêt ngay xool absolument ku ci nekk organe bu la invité da ngay daw ba gis nga tey yaa ngay xas euh, kii euh, Sud FM wala Sud Quotidien wala groupe Sud et cetera. Mhm. mais fu la Sud invité nga daw ba tey. absolument <laughs> kon seen i partisans yi nga xam ne dañ leen di topp. di xas ak di saag ak di kii yenn organe de presse yi. Mhm. ils n'ont pas compris que politiciens yooyu noonu. Mhm. dañ leen di use parce que ñoom seen i intérêt la ñuy. c'est des manipulations man nag Ousmane Sonko fayuma Macky Sall fayuma je suis libre. pourquoi je dis ça parce que j'ai reçu beaucoup de messages pourquoi ngay invité commissaire Keita je ah suis bon? Ah ñu génn j'avais invité qui juge Dème ok j'invite des de d'autres invités de de d'opposition et et de sphère euh, yoo xam ne kii mais on on est libre on n'est pas là pour pour tëj affaire yi commissaire Keita c'est pas parce que dafa am euh, dafa am euh, esprit partisan il le défend Ouais. Mais il est, il est, il est, il est libre. libre il a le droit. Ouais, il est libre. Dit, il vraiment, il est libre de, faire son choix. Là, là, vraiment, il est libre. On est d'accord. Mais man, kenn du ma tënk. Absolument. dama bëgg mu leer. dama kontaan ci loolu. waaw parce que ça veut dire ce que ça veut dire. simplement je ne commente pas merci beaucoup. jërëjëf waay jërëjëf. commissaire mais il merci commissaire alors euh, man dama bëggoon ñu ñëwaat un tout petit peu. Euh, à l'entame de mes propos, je disais que vous étiez euh, à une époque le directeur de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. drop bi ci ci police bi ak ni ñu koy jàppee d'habitude d'habitude coow dinay faral di am lu bëri ñu naan police est-ce que drogue bi ñu jàpp yëpp ah, noonu la est-ce que taal nañ ko est-ce que gërëb gërëb jàppal bàyyi voilà léegi yow leeralal ñu foofu ci tënk rek man dama la mere tuuti parce que da nga usurpé da nga sàcc foofu. Ah, <laughs> parce que man dama bëggoon ñu ko ne waxtaan la mais da nga sàcc. comme non xam nga waxtaan tey. temps la ko ko may waaw d'abord dama la wax tout à l'heure ni la. Hmm. askan wi déjà dañu annoncé woon les couleurs en faisant la même chose est que drogue bi ñuy jàpp yëpp. Hmm. dañ koy lakk. Hmm. man étant de l'intérieur débat boobu dama ko évacué woon parce que dama gëmoon ni. loolu ay waxu mbedd la rek. mais bu ma duggee ci biir nekk directeur OCRTIS. Hmm. ci laa découvrir ni effectivement drogue bi kenn du ko lakk. Hmm. waaw. pourquoi parce que loolu moom ma jëlee police. yéen drogue bi ngeen ñuy wan ngeen koy filmer waaw ñu ne lakk nañ tant de kilos xaw ma. yamba kërëb kërëb jàppal ay tonnes ay ton waaw <laughs> kenn du ko lakk. ah bon parce que déjà biñ koy jàpp dafay manqué ku ci mën a xëq xëq ku ci mën a këf këf ci. Hmm? ma tere alkaati yi ñu ma joxoon ñu sol sac à dos parce que bu dee yamba bi ak ñaakoy bi brown bi ak ñaakoy bi hmm. soo duggee ci benn cinq tonnes alkaati yi ngay àndal ñooy jëkk sàcc hmm? def ci seen sac dem parce que kilo bu nekk cinquante soixante cent mille francs la ma gis ni fiñ ma jox de li fa nekk du jàmm ma ne du ma affecté kenn il faut ma xam lu fi nekk parce que dëgër bopp laa ma commencé gis ni fii dañuy dund dundu xaalis ma commencé jot ay relation ci biti ay nit yu may woo pour ni ma kaay ñu def nii man ak diw nii la doon def. corruption passive quoi. <coughs> oui loolu foogoon naa ni yëg nañ ko. buy mm. Sénégal yéen xam ngeen ko agence de la presse. Mm. j'ai reçu des appels de gens qui m'ont dit kaay ñu def nii. Mm. parce que ñun ak diw dañ doon def nii. ma dajale jël ay numéro ak lépp ak lépp ak lépp tey ni alkaati def ba dajale li nga xam ne mën naa ko présenter sama kilifa ma daw dem seeti Pathé Seck mi doon ministre de l'intérieur toog ak moom ci biroom daal ni lii kat laa jële fële lii laa jëkk ëmb expliquer ko lii ni ko fii ma dem kat fii ngeen ma yóbbu gaa yi dañuy jaay drogue te kilifa gi fa nekk moom moo nekk au centre du trafic parce que li ma ci jot am mooy ñii ma téléphoné muy Akim Austin ak benn xale bu bu dëkkoon waaye gaañu na. Hmm. ah euh, fàtt naa turam Sénégal gaañu na. ok ñetti ñi ma jëkk téléphone hmm. loolu lan moo wax. kaay ñu def nga jël li ngeen saisir nga jox ma ñu jaay ko jox la xaalis hmm. nga am si ñu am ci parce que dañ ko doon def ak ki fi jëkk nekk ministre bi ne ma nu ñuy def man ko lii duma ko bàyyi ou bien ma bàyyi comme duma dawkat nag dama koy régler. nu nuy def ma ne ko enquête ba ci fin bi mais bugguma scandale ñaaw nan ka teg fële mais nan def enquête pour régler problème bi ñu avancé. ok on a commencé l'enquête waaw ci tënk ñu commencé enquête bi. Mhm. bi ñu laata àgg ci enquête bi. Mm. ñaa moomu ñu dossier am nekkoon ci kaw table ministre parce que def naa ay rapport colonel Diouf def na rapport ci ministre bi je suppose parce que wax na ma ko. Mhm. ministre bi proposé que directeur général police. Mm. du ma ko nangu. wax xeex kon yow fa la fa la. Euh, fa la affaire yi départ quoi c' le point de départ de votre démission. non c' pas ma démission j'ai été radié. non non non dama mais c' le point de départ quoi. c' le point de départ. d' ah, ah, da doon da doon mu ne démission. waaw ah, <laughs> été radié. pas comme un délinquant. Hmm. j'ai été radié pour avoir défendu mon pays. parce que un un directeur général qui trafique de la trop mën na génn fi sax américains yi jàpp ko. oui c'est logique. day taqal parce que ñun ñëpp xam nañu. ay tubaab ñu ngi fii xam nañu dañu dul régler say problème mais soo amee kilifa guy def lu xóor si biir xam nañu ko. mais dañuy ànd ak yow ci li nga yow organisé. Mm-hmm. jusqu'à ce que mu am déclencheur bu leen ci dugal. Euh, commissaire nga baal ma rek euh, que dañuy tënk. comprendre nañ euh, naka nga gisee doxalinu police nationale jamono jamono ah, yii ñu nekk. moment bii nii nii quoi présentement par rapport ak sa bi nga fi nekkee est-ce qu'il y a une différence euh, sur le plan quand il y a police nationale euh, globalement il y a une différence ci les modes d'opérer wala les modes d'opérer les manifestations police jamono administrativement mais je crois que ñun fi ñu nekkoon ñoom déménage nañ ci ñu ngi avancer ñu ngi évoluer hmm. pourquoi parce que ñu ngi gën a am ay nit hmm. ñu ngi gën a am ay jumtukaay. ñun suñu duggee ci police yi léegi dañuy complexé par rapport ak ñoom. waaw ah ngeen xam ngeen ko. Hmm. nous étions ñoom li nu am léegi pour liggéey. Hmm. ci nit ak ci jumtukaay ñun amuñu ko woon. Hmm. ci formation yi tamit. niveau de recrutement bi baax na trop. et les formations répondent en conséquence. kon police ñàkkul euh, euh, jumtukaay jamono yi. ñàkkul jumtukaay mais. par rapport à fi mu jógee ak fi mu war a dem. ci yoon la nekk. parce que fi ñu jógee. vers les années deux mille dix. ba bi ñu fay toll. ba bi ñuy toll deux mille dix mënagoo delloo ci ratio bi nga xam ni mooy permetre ci biir police bi nga fonctionner normalement. waxuma nag ratio bi nga xam ne moo lay permettre nga régler problème citoyen citoyen dans toutes les spécialités. munoo am commissariat de police de sécurité publique bu aligné li ñu doon aligné ñun bi ñu ñëwee. au début euh, dans les années soixante dix te doyul woon. nga xam ni quand j'étais adjoint au commissariat de police de Guédiawaye nous étions tout le temps au moins cent vingt euh, agents mm. cent vingt fonctionnaires au moins boo demande Saint-Louis la région de police de Saint-Louis comptait plus de trois cents personnes mm. mënul woon mënul woon amati mm. pourquoi parce que dafa am benn rupture bu am en 87 bi ñu dàqee alkaati yi te fekk na boobu ñu ngi pour matal mu am rupture kenn recruté tul gendarme kenn recruté tul pourquoi parce que tubaab yi dañ doon serré suñu budget ah limitation de la masse budgétaire les états étaient obligés de s'aligner hmm. profité ci boobu léegi wàcce nag léegi ba noppi bugg sécurité am mënul dem d'accord mais alkaati yi dañ doon dem ak seen pexe euh, il n'empêche que nag ci liggéey bi alkaati amul lay yi hmm. nit ñi gis am satisfaction wala ñu ñàkk lu a mu wax am na solo nii nag wax dëgg yàlla su gënoon a yokk ca kanam. danañ ko laaj laaj yu bëree bëri. mais comme malheureusement dama koy laaj rek. ci ci bi ngir të tëjeeg moom laata may tëjeeg leneen. mooy euh, ñu ngi jëm élection législative. waaw xam nañ ne dañu war a tabb ay député yu bees yow bëggoon nekk député de no man aw ma projet. lu tax bu ko représenté. comme yaa ngi ne dama pourquoi bugguma ko mais c' que dama moi je suis arrivé dans l' espace politique. Mm. après sama retraite. ñëw pour ji jëriñ sama réew. Mm-hmm. nu ma ko defee. Mm. fii yëpp Sénégal wax naa la amul ku jonkanul sama buntu kër du ma tudd ay tur. Hmm. na ngeen laaj kilifa camp politique yi fii yëpp amul ku jonkanul sama buntu kër. Hmm. Ousmane Sonko laa ci mën a tudd tey pourquoi parce que rek moom moo nekk ah, ci ci ci ah, devant scène bi mais amul ku ñëwul sama buntu kër. commissaire ni nga ko waxee graaw na. mais vraiment vraiment mais je te dis je te dis. mais man lu ma def. dama dem dellu fi ma am kër. Euh. kër juddoowuma fa yaroowuma fa. ma ni fii kat comme fii laa dëkk rus naa di leen romb di dem def politique feneen. Mhm. muy cité da baax Kër Ndiaye Lo. Mhm. depuis des années may góorgóorlu ci biir population bi pour yëkkati leen pour que ñu am conscience politique pour yëkkati leen pour que ñu bokk ci géew bi pour yëkkati leen pour que ñu am dara ci géew bi bokk ci ñuy tabax Sénégal et c'est un travail déjà très dur soo ko bëggee boolee nekk député yow sa bopp c'est tout un problème merci beaucoup commissaire Cheikhna Keita je fermer avec une question qui boo xam ne ci man lay jóge euh, mes frères et sœurs du groupe Takay Far mhm. groupe bu mag boobee ci wàllu musique di say doom euh, suma xel dem ci Jacques Keita Makhoudia Keita ak toute la famille Keita. Mhm. macha allah ñu ñëw révolutionner en tant que jeune musicien et tout jamono yii ñu ñu tasaaru euh, foo toll est-ce que négociation ak euh, euh, jubóole am na ci Takeifa. non c'est des pas des trucs qu'on négocie Takeifa c'est maanaam. au-delà du fait d'être un groupe de musique c'est une famille. Mm-hmm. c'est des gens yu bokk ndey ak baay. Mhm. xam nga milieu artistique. Mhm. boo dem. day jékki-jékki ba si àgg mu am déblocage mhm. dans la gestion mhm. des carrières dans la gestion des ambitions ok mhm. loolu mu indi foo dem tey loolu nga fay gis il fallait qu'on s'arrête et qu'on essaie de voir comment réorienter certaines choses pour que ku nekk ci li nga xam ni moom mooy sa orientation personnelle parce que ay mag la ñu du ay nga xam da nga leen di teg table samay doom samay doom samay doom je suis à l'extérieur de ça mais damay ànd ak ñoom ci biir loolu ñu dem di xool comment faire pour que ñu bàyyi ku nekk nga exprimer wu dans ton individualité dans tes envies dans tes ambitions personnelles dans tes tendances personnelles far Covid bi ñëw tëj ñëpp. macha allah Covid bi tas ñëpp. donc on est en train d'attendre su yàlla defee ku nekk fi nga jaar. mu nekk nekk li nga xam ni moo gën ci yow gën ci sa carrière c'est très uh-huh. bien uh-huh. su yàlla defee ni mën nañu dellu siwaat servir la musique sénégalaise comme ils l'ont fait te ngeen bugg ko keneen bugg ko uh-huh. yàlla su ko defee ils vont se retrouver ici parce que rien n'empêche de le faire des groupes ont vécu pendant 40 ans séparés Et en tout cas. a de votre détermination mhm. parce que gis naa ne bu engagé wu il est toujours policier <laughs> en dem ba jeex quoi. on espère que jubóo boobu ci Takeifa dina am parce que nam nañ leen quoi. merci beaucoup merci à tous de nous avoir suivis c'était un plaisir de vous accompagner à travers votre émission préférée Ndekili émission Nandite vous qui nous écoutez d'un peu partout. partout, ben, profitez de ce week-end, comme tous les week-ends, euh, euh, pour sortir un peu de Dakar, puisque Dakar n'est pas le Sénégal, en région, euh, ça fait du bien quand même, entre amis ou en famille, whatever. Merci en tout cas à tous, passez une très bonne journée, un très bon week et surtout, n'oubliez jamais, visez la lune. Merci à notre invité du jour, salut à tous et à la semaine prochaine. mooy émission nandite yi. ndekki li émission nandite yi. tàngal bége jinjeer Boisson Punch. Orange. ak agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie di AME. ñoo leen doon may seen émission ndekki li.